gannaaw ba ñu lawee immunité de parlementaire am boobu moom Ousmane Sonko maanaam muy mbalaanu kiraayu moom moomee nga xamee ne moom la amoon ca assemblée national yoonu Sénégal xëy di ko woolu mu war a janoo moom suba ak jàmm ci àllarba ji maana muy justice bu Sénégal askan wi tamit laaj bi samp ci ñoom ba xam kii di usman Sonko dafa war a wuy ji wala naka la daal di war a mën a def sëriñ bi moom di xamle ne moom bu doon Ousmane Sonko di wuy ji ndax la dal Karim Wade dal Khalifa Sall bu demee loola rek moom ko fay daal di fekk. franchement bu doon man kese du ma waaw du ma dem ndax moom li tax mu gàntu xam na ne bu demee la ko fay fekk ndax lu waral ma wax loolu mooy ñi fi jaar ñëpp kenn ku ne mosoo jaar foofu ba am ci ndam ndax moom képp koo xam dafa taxaw pour jàkkaaroog moom rek dana fex ba éliminer la ak ku doon jàngale du sori quoi ndax fi ne nii Karim Wade ba léegi moo ko génn réew mi te situation yi ñu ko génnee ku ne xam na ko Khalifa Sall barki di moo njaay la te moom daal si gàttal daal moom boo àndeek ak moom lépp gongo mais boo ànd ak moom dana la contre ak koo mën a doon nag moo xam muy kilifa diine moo xam koo mën a doon mais man Sonko moom li mu koy digal mooy affaire moom ñëpp xam nañu complété la moom ku ko dégg commencement bu fin dana xam ne complété la. ñenn ñi tamit daal di jàpp ne tamit kii di Ousmane Sonko dafa war a wuy ji ndax lii daray nguur daray politique bu nekk laale wu ci. man sama jàngat mooy mu dem wuy ji ndax parce que affaire bi da koo jël bëgg koo politiser te président laale wu ci yoonam nekku si moom dafa jotee personnellement benn jigéen jigéen boo xam ne tey jii moom nangu na ne dem na fa déjà wax na Sénégalais yëpp ne dem na fa. dem googu mu fa dem noonu te nangu na ni dem na fa rek dafa war a dem wuy ji yaa ngi dégg waaye wërta taxaw di wax ne eh, man duma dem ndax niñ dindee sama eh, sama mbalaanu kër laay du yoon affaire yooyu noonu te lépp dañ koo jaar ci yoon ñun liñ gis lépp dañ koo jaar ci yoon jaar ko ci règlement yu wóor yaa ngi dégg moom dafa waxoon ne buñ ma buñ dindee sama mbalaanu kër laay 10 heures 10 heures 5 maa nga fa kon lam waxoon dafa war a dem waaye wax waxeet bi mooy lan ginnaaw ñun ñëpp ay sénégalais lañ te yoon moom yoonu Sénégal la te yoon moo ko wóolu ñu def wuy parce que ñaari sénégalais la yoon wóolu leen ñoom ñaar ñu war leen a lijjanti kon dem wuy ji man de loolu laa dafa war a wuy ji setal deram wuy ji ngir ëllëg leneen li ci ginnaaw li ñëw te xam naa ne moom dana am dara li ci ginnaaw nag la wala sóoraal dem wuy ji. mu am lu ma koy wax leen laa koy wax parce que état dafa bari doole. donc dafa war a wuy ji pour noppal sénégalais yi ndax du fi nekk ni du wuy ji bon teg ñu fitna ñun ñëpp parce que ñun mooy suñu leader ñun moom lañ am mais de toute façon lu mu ci mën di doon rek état moo ko woolu na dem wuy ji ndax de toute façon bu wooy diwul dañ koy jëli te boobaa dina teg fitna sénégalais yi ndax ñun duñ ko seetaan donc la moindre des choses mooy que ni mu wuyu ji ñëpp nekk ci jàmm man loolu laa gis sëriñ bi moom di xam ne ne Sénégal jàmm ji nga xamee ne moom lañ ko xamee woon bu ca dara daal di changé wu kii di Ousmane Sonko na dem ngir teggi tuuma ji nga xam ne moom la kii di xale bu jigéen bii teg ci dërëm. nit buñ ko taqalee même teggi tuuma dafa baax moom wér na lu taqal nañ ko moom soxna si ko taqal yëpp ñoo war a toog ñu ne soxna si yaa taqal kii na la def ba taq nan nga def ko la ak lan la def ba jot ak yow. soxna si indi ay firnde yi leer na képp koo dégg xam ne lii dëgg ji wér kéng la kenn taxal tamit mu taxaw wedd na bu fekkee dëgg la ñu toog dégg-dëgg la xam ne lii dëgg la wala dëgg waaye kantaan nag kii sa mag mu ñu jàkkoor ñoo bokk lañuy ñuy def tey ma faagaagal ko bëgg a faagale tamit du sedd si moom même Sonko dem bëgg a faagalee tamit du seet si moom kon la njëkk moom fekkee dañ kaa taxal mu wér dëgg la taqal nañ ko na dem na xam taxaw de kat yëkkati baaram na dañ maa taxal tey laay weddi yéen Sénégal yëpp teg leen seen bët bu fekkee maa def bu dee dëgg la nañ ma tëj ci kaso illaa yu ma diin bu fekkee deful nañ tax si àdduna bépp ne defuma ñu bama waaye dafa war a wuy ji yoon bi nga xam moo ko woo dafa war a dem wuy ji taxawoon na man taxal ngeen ma tey laay seetal sama bopp àdduna bépp teg sama bët bu jaree mu indi kaamil alxuraan teg ko jàpp ba set teg su la rëkk teg su loxoom dana xam ne ñii dina xam ne dëgg la wala dëgg. yàlla def ci jàmm rek parce que tey. fitna Sénégal baaxul li avancé suñu réew moo gën lii delloo gannaaw suñu réew am déet donc xam nga ñun ñëpp ñu booloo doon benn xam nga mu dem wuyu ji ci njekk ak teraanga jàmm nekk Sénégal te ñu nekk ci leneen daal parce que xam nga xaalis amul saa boo xëyee Ousmane Sonko mag Sall dañ cee sonn quoi dañ cee sonn vraiment tamit xam nga bëgg nañ lu avancé loo suñu Sénégal yaa ngi dëkk bi doxul chaque jour ngay nekk ci problème Ousmane Sonko Macky Sall Ousmane Sonko Macky Sall suñu Sénégal kañ lay Karim Wade la woon ak Macky Sall xam nga Khalifa Sall Macky Sall léegi ñun kañ lañuy avancer ñun kañ lañ génn ñun doomi réew mi tamit il faut qu'on se dise la vérité. moom indiwaat bu laa jëm samp ko ci kii di président Macky Sall di xamle ne bu faagaagalee ay adversaire am yëpp 2024 kan la war a janool. question bi may laaj rek mooy Macky Sall léegi bu fexee moom ba éliminer adversaire politique am moom léegi présidentiel moom kan la te loolu moo mënut am Sénégal mais bu ko bëggee Sénégal duñ ko nangu quoi man la laaj xalaat. mu mel na nag senegal yi jamono bi ñu toll ñoo ngi xaar kii di Ousmane Sonko ngir mu daal di génn setal deram wax loo xam si ne tamit dafay daal di leeral seen bopp yi ba jàmm ji nga xam si ne moom la ñu xamee Sénégal ñu kii di Ousmane Sonko bu mu ci yàq dara na dem ngir leeral waaye tamit teggi tuuma ji nga xam si ne moom la ñu teg ci ndoddam